alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin ziyaara leen ndokkeel ci tëdd bi waxtu tëdd bi ci barabu tëdd bi nag leen dool leen ndokkeel xew-xew bu mag bi nga xam ne moom lañ jàll xew-xew bu mag bi nga xam ne moom lañ jublu jàll muy bisub cant bi nga xam ne Cheikhul Khadim moom la woote woon te ñun ñëpp ñu ànd ko defandoo ko ni ñu jàpp ne noonu la ko bëggee woon di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu nangul nu ko te nangul leen ko te defal nu ci yoolu ku sant lañ lay fayee ak yool bañ lay fayee yëpp yàlla sunu borom tabaraka wa taala defal nu ko ci barke Cheikhul Khadim xam naa nag jàll na waaye dafa bokk ci jikkoy jullit bu ak jullitam dëggu saabu bu xew-xew jàllee rawatina xew-xew bu mel nii mu war cee jële ay bind war cee jële ay enseignement yoo xam ne dana ko mën a jariñ ci diineem dana ko mën a jariñ ci addunaam ndax loolu mooy li sunu borom tabaraka wa di jëflante ak nun ci alxuraan dañu nettali xissa yi ñi fi jëkkoon ak seeni jaar-jaar ngir ñu mën caa jariñu lu ñu mën a defaral suñu diine ak suñu àdduna faqsusil qasasa laallahum yatafakkarun laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab inna fi dalika la ibratan liman yaxsha màggal nag xew-xew bu màgg la boo xam ne dafa ëmb ci biirum ay bind yu bari yoo xam ne warul jàll rek ñu ne jàll na neex na wala defee nañ ko nii wala defee nañ ko naa waaye dafa nekk loo xam ne ay bind la yanu yoo xam ne bu jàllee ab jullit ab taalibe da caa war a jëlee ay bind nag yu am solo yoo xam ne mën na koo jëriñoo ci diineem ak ci àddunaam bind yooye nag bari na lool kenn mënu ko takk mën ne su ko waxtaanee ci ay waxtaan tam waaye nag li waxtu wi laaj rek ñu tànn ci ay benn benn yoo xam ne gis nañ ne am na njëriñ ci sunu dund bind yooyee ba ca jëkk mooy nu xam ne màggal gi nattu la woon bu yàlla nattu ab jaamam di ab liggéeykatu yonentam sallallahu alayhi wa sallam nattu ko nattu bu metti loole nag mu muñ ko ba yàlla fayee ko màggal gii ak li ci xew lépp loolu li muy wone kon mooy ñu xam ne nattu sunna si yàlla la doxinam la ak mbindeef yépp waaye rawatina nit ñu baax ñi nga xam ne daf leen a tànn saa bu leen tànnee daf leen dana leen nattu saa bu leen tànnee dana leen jaarale ci ay jaar-jaar yoo xam ne bu ñu ci génnee nag mu def leen ay tànnee tànneefam def leen ay nitam wa nabluwakum wa nabluwakum bil xayri wa charri bi charri wal xayri fitnatan wa ilayna turjaun wala nabluwannakum xata naclama almujahidina minkum wa saabirina wa nabluwa axbaarakum axasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun walaqad fatanna alladina min qablihim fala yalamanna allahu alladina sadaqu wala yalamanna alkaadibin loolu lépp ay aaya la yoo xam ne li ci sunu borom di biral mooy rek faw rek bala maa nangu seenu gëm bala maa nangu seen jihaad ne dëgg la dama leen a nattu jaarale leen ci ay jaar-jaar yu bari ba segg leen ba xam ñi nga xam ne ñoo ci wax dëgg ak ñi nga xam ne ñoo ci wuuteeg la ñu wax ci seen làmmiñ kon nattu sunna si yàlla la soo xam ne moom lay doxalee ak mbindeef yépp

رسول الله soo xam ne sunu borom tabaraka wa taala moo koy doxale ak jaamam ñi kenn du ci mucc ñi baax ak ñi kàccoor jullit yi ak yéefar yi ak ñépp rek yàlla sunu borom tabaraka wa taala leen nattu donte na nattu yee ca ña baax nag dana rawaate ci kem seen diine nu sa diine toll noonu la sab nattu di toll bu diine ja dëgëree nattu ba dëgër waaye bu diine ja woyofee nattu ba woyof ni koy sunu eh, eh, ni ko Cheikh Cheikhul Khadim radiyallahu taala anu waxee ci masaalikul jinaan te loolu ab hadis la bu mu bu mu indi foofu wa yubtala rajula rabbuhu ala diini ala xasabi diinihi ala ma nuqila fa in yakun salban yushaddidul bala wal aksu bil aksi ala ma yujtala laa yatrukul balaau abdan zamana xata yaxutta alayhi kulla ma jana nee na sunu borom tabaraka wa taala buy nattu nit ñi day seet kenn ku ne fa sa diine toll ci ak dëgër bu dee diine ju dëgër nga yor diine ju am solo nga yor mu nattu la nattu bu toll noona waaye bu dee diine ju woyof nga yor mu woyefal nattu ba kon nattu mi ngi aju ci diine yi borom diine ju dëgër rek mooy ànd ak akub nattu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu mu ko waxee ci hadis bi achaddul naasi balaa an al ambiya summa am salfal am sal ñi gën a tar am nattu ci nit ñi mooy yonent yi ak ña topp ci ñoom ak ña topp ci ñoom ak ba ba ba mu gën a jëm ci suuf kenn ku nekk da ngay nattoo ci sa kem diine loolu bu ñu ko xoolee danañ gis ne ka ci njëkk mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa mooy ngën ji mbindeef te teewul sunu borom tabaraka wa taala tànn ko ci mbindeef yëpp waaye nag moo gën a tar mbindeef yëpp ay nattu ci wàllu gu nekk wala sunu borom natt na ko ci wàllu ay waajuram mu teel koo ñàkk nattu na ko ci ay njabootam mu ñàkk ci ñu bari nattu na ko ci alalam mu am mu ñàkk lool ba amut lu mu jëfandikoo loolu lépp sunu borom ne waaye nattu ba gën a rëy nag mooy ba mu demee ba yàlla yónni ko yónni yónenti gu gii nag mu nekk biir màkka woo leen ca ñu bañ yónnante ko waaye yemuñ ci waaye ñu génne ko moom ak ñoom àndaloon ñu ko gëmul ñëpp ñu génne leen lor lor lor leen lor joo xam ne lor mënu koo féete kaw ba yonent bi sallallahu alayhi am na fu mu ne maa uuziya ahadun misla ma uuzi uuzitu fillah amul kenn kuñ lor ci yoonu yàlla lu toll ni liñ ma yor lor ci yoonu yàlla kenn rek loruñ ko ci yoonu yàlla lu toll ni liñ ma lor ban sallallahu alayhi wasallam te mooy ngeen ji mi def moom mook saxaaba yëpp saxaaba yi noonu lañ leen def ñoom it lor jooju dara tàbbi ci ñoom bañ dem banaan naan mata nasrullah kañ la ndimbalal yàlla di dikk ngir tar gu nattu ya tar ala illa nasrullahi qarib yàlla nee na sama ndimbal jege na lool tak mu ngi mi ngi ñëw naka noonu itam cheikhul ahmadul xadim mii nga xam ne moom lañ doon màggalal wala moom lañ doon dim jàppale ci sant sant li ko yàlla lim dajee ci ay noonam ci ay nattu ak i balaa kenn mënu koo wax ci làmmiñ waaye kenn mënu koo bind ci xalimba ñaari bayit rek ba muy door a tàmbule rek doy na sëkk ci xam nattu ba ñaari bayit yooyu mooy wa iza zakartu zalika al mabita wa zalika al amira wa thubuta taarat ila al jihaadi bil nafsi walakin tab anil maahi guddi gëm njëkk fanaan ndakaaru rek nee na daj na fa loo xam ne bu ko fàttali ko métti na métti goo xam ne day jóg bëgg a jihaat ak noon yi te ku ne xam ne ne moom jihaat ak jihaat ak jaasi wala jihaat ak euh, kàttan nekkul Euh, doxalinam waaye ne saabu sàkk fàttali guddi gudd yooya day bëgg a jihaat jihaat ak noonu yi ngir métti gu métti wax na ci ci ci jasaawu sakoor ci nettali yi muy nettali ne am na ci benn ci biir géej gi genn benn dun wala jasiira buñ ko dugaloon boo xam ne nee na daj nafa loo xam ne ci ay coono lu dul génn ak roo gënu ko metti ay coono yoo xam ne lu dul génn ak roo gënu koo métti lam yakun asqala minhu gayru xuruji ruux coono booba dara lu génn ak ruur rek gënu ko metti kon loolu lépp wane na metti metti goo xam ne balaa yi metti woon na ko natt yi metti woon na ko kon loolu li muy wane mooy sunnatullahi fi xalqihi yàlla noonu lay doxale ak nit ñu baax ñi su le bala leen a tànn rek faw mu nattu leen kon ab jullit li mu war a jëlee ci màggal gi mooy saa ko yàlla nattoo ci njabootam wala mu nattu ko ci boppam ci wéram wér gi yaramam wala mu nattu ko ci alalam mu fàttaliku ci màggal gi kii yi nga xam ne moom la màggal àggu ko fenn moo ko gën ci lépp waaye nattu bañ ko nattu woon it munuñ koo nattu moom lu toll ni nattu boobee moo gën a tar ab nattu ci nit ñi kon loolu ku ko fàttaliku ci magal gi loola dal rek da nga koy mën a muñ ngir xam ne ku la gën lu ko gën a metti dal na ko te muñ na ko ba sunu borom tabaraka wa taala fayee ko ca lam ko ca fayee bokk da ci li ñu war a jëlee ci magal gi tam ci ñaareel mooy bi mooy ne yàlla kat kum teg nattu it nga muñ ko muñ gu rafet pay ga bu dikkee dana ëpp la nga doon xaar wala dëgg ëpp la nga doon séenu coono yi nga xam ne sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu ak moom ak fitna yim dajal ci biir géej gi yëpp lu màgg-màgg kenn du ko lëkkale kenn du ko xiyaas ci may yi nga xam ne sunu borom tabaraka wa may na ko ko ndax suñu borom moo mel noonu nee na inna waa ñu wax fa saabiruna ajrahum bi xeyri xisaab ñi ma teg nattu ñu muñ ko muñ ko rafet bu ma leen di fay du ma leen limal la ma leen di fayal amut limite ni ma toll rek noonu laa leen di fayee bi xeyri xisaab waaw kon ku yàlla nattu nga muñ ko saaligoo tawatoo da nga dajeeg pay gu mat sëkk pay gu mat sëkk goo xam ne dara du ca wàññiku wala nabluwannakum bi shay'in min al fi ba ca aaya ba mu wax ne allazina isa a musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika hum muhtadun ñi muñ daal lii la leen yàlla digle yërmandeem yàlla dig na leen xéewalam yàlla dig leen ak njubam ñetteel ba mu bokk ci Euh, moo moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu moom saa boo xamee ne rek euh, euh, fat mu ngi bëgg a fàttaliku coono ya ko dajoon yam dajoon ca ak noon ya ak lañ ko doon teg lépp nee na saa bu ko bëggee fàttaliku xéewal yi ko yàlla defal tam juddoo ca coono yooy ne da koy fàtteeloo loola shughiltu bi shukuri an tadhakkuri maa qad bay nii wa bayna al askari su ma fàttalikoo rek su ma bëggee fàttaliku loola rek xéewal yi day teew ci sama kanam ba fàtteloo Euh, la ma dajoon ca sama diggante ak ñoom chahalani shukru ilahin qabila kulliyati an dikri madin min balaa maam balaa yooyee woyoon su ma fàttali ko xéewali yàlla yi ma defal rek tam juddoo ci loolu rek damay fàtte looloo la moo tax ñu bëree bëri dañuy wax ne màggal gi ñu wax ne fàttaliku la ndax Sëriñ Tuubaa fàttaliku la doon bañ waaye mu woote cant waaye woote woote wut ak fàttaliku ndax booy fàttaliku rek yaa ngi fàttaliku la métti woon yaa ngi fàttaliku la taroon moom nag bañ ñu fàttaliku loolee taroon nu mu koy wutalee mooy sante ko yàlla ndax ca tartar yooyee moo ko may li mu am moo ñu may li ñu am kon dañ ko war a sante suñu borom tabaraka wa taala ndax ci la jaar bañ am li ñu li li ñu bëgg ñetteel ba mooy bokk na ci jikkoy jullit saa boo xamee ne suñu borom tabaraka wa taala nattu na ko ak zuruuf yu mën a nekk situation yu mën a nekk xaal bu mën a nekk rek du ko tàqale ak gëmam ak pas-pasam mabda am principe yi mu gëm ak dëgg gi gëm lenn lu metti wala lenn lu lu lu lu tar du ko mën a teqale ak gëm-gëmam boobu du ko mën a teqale ak nat natoo boobu loolu mu sunu borom tabaraka wa taala ma ngi ko wane ci yonent ba sallallahu alayhi wasallam ba mu wootee ci makka waa makka ne ko kaay bu fekkee li ngay woote da ngaa bëgg alal ñu jox la alal bu fekkee da bëgg daraja ñu jox la daraja loo bëgg rek boo bëggee nguur ñu jox la nguur waaye sax gum sax ca la ko yàlla yónni ak dëgg ga mu ne leen law wadau shamsa fi yamini wal qamara fi yasaari ala an atruka haada al amra xata yudhirahu llah aw ahlika duunahu ma taraktuhu su ngeen faboon jant bi teg ci sama ndeyjoor fab weer bi teg ci sama càmmooñ ak li ñuy diis diis diis ngir bëgg ma bàyyi lii ma nekk su ngeen defoon loolu sax du tax ma bàyyi ko mukk lu dul ne damaa dem ba alku ci rek dama dem ba alku ci kon loolu wanee na dëgër gum dëgër ci pas-pasam waaye wanee na dëgër gum dëgër ci euh, euh, la nga xam ne moom lañ ko yónni woon la nga xam ne moom la moom la gëmoon loolu la si Sëriñ Tuubaa wane ci biir géej gi moom it bi muy dem ci géej gi ba ba mu fiy jógee Mbacke Bari ba ba muy del siwaat nekk Jurbel ñu indi ko Touba mu mu mu mu mu dajeeg boromam amul benn yoon boo xam ne la mu gëmoon yóbbaale ko wàññiku na ca lu toll ni euh, catu baaraam lu toll ni bën bënu puso rek wàññiwu ko ca la yóbbu woon xanaa kay daa dolli ko ndax bañ koy yóbbu lam doon wax lay wax bañ koy indi la doon wax lay wax musu caa dej benn yoon musu caa dej benn yoon yaa jumlatan qad sallasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu bam bañ koy yóbbu ngir bëgg wàññi gëmam moom leen ma ngi leen di ŋàññi di leen di leen leen wax seen ñàkk gëm seen ñàkk gëm googu lam leen di indil ëllëg ak bokkaale gi ñu bokkaale yàlla lam leen di ëllëg wali chat wali chat bi anni laa udaahinu mushrikan maa du ma maslaa ak ñoom mukk ca dem ba ak ca dikk bi bépp du maslaa ak ñoom mukk benn yoon yi xalilan xabiban lillati karamal jamba dem bay wax ak géej gi sax di ko wéetaloo yàlla waxuma la moom ak wéetam yàlla wéetalam yàlla waaye géej gi sax mu ngi ko wéetalal yàlla ayaa baxru waxid laa tusallis fa rabbuna taala ani taslis bi bihi rabba yow géej gi bul boole yàlla ak dara bul boole yàlla ak dara wéetal ko te jox ko aqam kon ab jullit ak kum fu mën a nekk ak situation yu mën a jaar ak métti métti yu mën a jaar gëm-gëm gëm yor wërta dengi dengi benn yoon ci lam gëm ngir xoolee sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu ci ci liñ ko nattu woon te benn déng-déng defu ko mu war koo roy ca loola bañ a déng-déng ci ak baña bañ a déng-déng ci pas pas pasam loolu nag rawatina ñi nga xam ne dañoo ne ci bitti di jaxasoog ñi nga xam ne ay yéefar lañ yor ay jikko yoo xam ne du jikkoy lislaam bëgg leen bëgg wàññi seen gëm nañ xam ne maanaam foofee ñu nekk fa fa fa la gëm war a yokkee nag foofa la ñu war a yokkee seen gëm foofa la ñu war a yokkee seen pas-pas gën ko faa jàpp lépp lu leen di teqale ak seen pas-pas lépp lu leen teqale ak seen gëm ñu xool Sëriñ Tuubaa fii ñu ko jaarale ñu xam ne jaarale luñu leen foofu ñoom it la ñuy dajit Sëriñ Tuubaa jarañoo lu ko ëpp te pas-pasam dafa gënoon yokk pas-pasam dafa gënoon a dafa gënoon a rëy kon loolu ay jikko yoo xam ne yëpp war nañ koo jëlee ci kii bi bi ci mujj nag mooy rek jéggale moom it war nañ cee jëlee xam ne Sëriñ Tuubaa lim daj lépp te ne dafa jéggal ay noonam afawtu anil aada i turran li wa ci man nafa um li xëyri sarmatan la su at fuxum jéggal naa ñëpp toppiwu mu leen dara afawtu anil aada i max saf wi kalkal yi jéggal naa leen tax xol bu sedd guy laa àndal ci jégal gi ndax li ma bëggoon sax ñoo ma ko may kon ab ab taalube ab jullit ab taalube lépp lu ko nit tooñ wërta fayul boppam wërta fayul sëriñ bi sëriñ bi boppam moom fayulul boppam bay digal kenn mu di ko fayul kon ab taalibe lee ak jëlale mooy war a nekk jikkoom ji nga xam ne moom la war a làmboo kon yii daal ay bind la yu tuuti ci lu bari loo xam ne mën nañ koo jëlee ci màggal gi ngir mën ko cee jariñoo ndax xew-xew yooyu loolu rek lay jariñ kon yàlla nu yàlla dimbali te bañ déggee ci déggin woowu te yeneen déggin yu ci nekk ñu mën ko caa ñu ko caa balluloo ba mën koo jariñoo ci suñu diina mën koo jariñoo ci suñu àdduna yàlla nu yàlla dimbale te sàmmal nu suñu kilifa gi nekk ci suñu kanam bàyyi ko fi lool mu yàgg fi lool ànd ak wér ba lépp loo xam ne sémb na ko ci diine ji ak séemuna ko ci yoon wi sunu borom tabaraka wa taala may ko mu àggale ko te ñu ànd ko ak moom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله الذي أنعم علينا بإظهار سيد البشر وقدر ولادته في هذا الشهر الشريف الأزهر وليلة ولادته عليه الصلاة والسلام فاقت أنواره النجم والقمر وعكف على منزل آمنة الطير وهلل وكبر وانشق إيوان كسرى ومال وانكسر فسبحان من أرسله كافة للناس فبشر وأنذر أحمده حمد من أمر بالمعروف wa nahaa anil munkar wa ashhadu an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu saahibul mu'jizaati التي بطول الزمان ذكرها ينشر اللهم فصل وسلم وبارك عليه wa alaa aalihi wa sahbihi salaatan wa salaaman daa'imayni mutalaazimayni ilaa yawmil mahshar amma ba'du fa yaa ayyuhan naas sabaqa fi ilmillaahi kamaa warada fil xabar maa kaana وما يكون وما غاب وما حضر فسبحان من اطلع على خلقه فعلم طاعة الطائع وكفر من كفر قبض قبضة من خلقه وقال هذه إلى الجنة wala ubali wa haadihi ila saqar wa qabada qabdatan min nuurihi wa qaala kuuni muhammadan sayyida albashar fa kaana bayna yadayhi kalmisbaaxi al anwar وخلق من نوره جميع الأنوار والكائنات وكان اسم الرسول على العرش مستتر مكتوب عليه لا إله إلا الله لا أغفر لقائلها حتى معها يا محمد تذكر فلما أراد الله أن يخلق آدم أبا البشر أفرغ على طينه قطرات من نور النبي المهتقر وقال لها كوني آدم فكانت كما قد جاء في السير وفي الحديث من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوأتي وعنه أنه قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار الحمد لله الملك المعبود الواحد الأحد اللطيف الودود البصير الذي يبصر جريان الماء في الحجر الجلمود ولا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليالي السود أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي تشرفت به الآباء والجدود اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما نبت زرع وأورقه أما بعد فيا أيها الناس ظهر الحق المبين والعيون عمي لا تراه ووضح الطريق المستقيم فليرجع المفتري عما افتراه وفي مثل هذا الشهر العظيم طلعت شمس الإيمان وذلت عبدة الأوثان وظهر دين الإسلام بولادة سيد المرسلين xaraja min batni ummihi mu'tamida wa bil malaa'ikati l-kiraami mu'tadida naadiran bi basarihi sh-shariif ila s-samaa'i maqtuu'a s-surrati maxtuunan mubaarakan ala l-ummati maamuunan وظهر معه نور أضاء له قصور بصرى وأطلع الله في السماء نجوما فصيرها للشياطين رجوما ولم يزل عليه الصلاة والسلام ولوائح السعادة تلوه على شمائله وبراهين السعادة تظهر بدلائله حتى استكمل من السنين أربعين أرسله الله لكافة الخلق أجمعين وفي الحديث كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث وإنما بعثت آخر الزمان لئلا تطلع الأمم على فضائه أمتي يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين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 سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء allahu akbar sami allahu liman rabbana lakal hamd Allah asalaamaaleykum.